mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen nuyuwaat di leen gërëm bu baax di am mbégte teewaat bi ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax di nuy ñëpp ñi seetaan solution TV euh, tey jii ñu dellu siwaat seen émission focus focus ñu koy amal àllarba ju ne euh, bi ñuy waaj élection yeeg après élection yeeg kori gi xawoon nañ ko fi nag bër waaye dellu siwaat nañ fa seen ànd ak yéen ci focus euh, day wéy tey jii nag ñu am gan dalal sëñ Modou Asta Mbacké sëñ Modou Assa Mbacke doon kilifa yi diine ca Touba Mbacke doon ab chroniqueur doon analise wala doon observateur loolu neex mun nga ko tuddee mais daal ci actualité politique bi bari na ci eh, fu ñu koy séntu mais aussi ràññee ko ci bu baax a baax mu ci wax xalaatam tey ji nag actualité tax ñu woo ko ginnaaw nganu ko njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Faye ca Touba Mbacke balaa ñu dugg ci waxtaan bi rek ñu bàyyi ko mu nuyoo sëñ Modou Assa Mbacke ñu koy nuyu baax di ko dalal jàmm Mbacke. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Omar Gueye maa ngi nuyu la siyaar li leen di siyaar koo xam ne mi ngi ñu topp ci seen bi di solution TV di nuyu ñu ñuy topp ci biir réew mi ak bitim réew di nuyu itam xalif général de Mouride Sëriñ Muntaxa an la yàlla guddal fanam yokk ak wéram amiin defee ko noonu itam sëriñ Mbaye Sy Mouhamadou Mansour yàlla na yàlla guddal fanam moom itam yokk wéram defal ko tawfeex aaj ko jëm mbiru jub saayir ak baatin barke yàlla Muhammadu alayhi salaatu wasalaam dëkk ñëpp waaw ah tey jii ñu teew ci émission bi di gërëm El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye ñoo nekk ci régie bi Omar Bun Khattab di leen ko présenté waaw ah ci focus sëñ Modou Assa euh, ban commentaire ngay def ak ban njàngat euh, ci nganuk euh, Bassirou Diomaye fay président de la République ca diwaanu Touba mbaaki ba mu fa jógee nem ca Tivaouane waaye Touba bi gi moo gën a tax ñu wala fi dem goog mu fa dem am ñu ne yéexe na ko ndaxte ci jamonoy campagne ñu ngi ko fa doon xaar mujj fa dem waaye expliqué na ci kanamu sëriñ bi lu tax demu ko ci campagne bi tey jii mu dem fa am ñu ne yéexe na ko yow gis-gis boobu da nga koy séddoo ak ñi koy xalaat wala da nga jàpp ni dem na ci waxtoom. waaw damaa gis ne moom le président de la république Bassirou Diomaye Faye damay faral di wax sax man jànguma tubaab xuma ma comprendre ko. Mhm. waaye man su damay dégg gars yi naan président Diomaye man naa bëgg ñu wax président de la république. Mhm. muy mat xam nga. président la république waaw yi di ko wax. Mhm. président la république Bassirou Diomaye Faye waaw léegi loolu Omar. li hmm. ma ko mën a jàngate mooy dafa jëfee ndigal moom président de la république. dafa jafe dafa jëfee ndigal. jëfee ndigal jëfee ndigal mooy bi élection présidentielle yi dëgg merci. Hmm. boo seetloo sëñ Mountakha moo ne. Hmm. nañu ko may politique moom yoonam nekku ci bu kenn dikk di ko wax waxee politique. mën ngeen dem dox ci seen soxla wax ko ci. làmmiñu porte problème. yaakaar naa loolu moo ko moo ko waxoon. léegi nag jamonoy campagne électorale moom en pleine politique la Ah. mënu faa dem moom jomaay fay lu dul ne dafa politique te beneen ba mu fa jaaree ak la muy xat-xat mbàkke ga mu jaarum taxaloog Touba dama bokkoon ca ñoo ko doon teeru mhm. politique la fa doon def mhm. avant muy dem itam consulté na ñu war a consulté mhm. ñu ne ko suñu ne ko sëñ bi moom la lim santaane mooy bu fi kenn politique kon dugg biir Touba waaw dugg biir Touba lay tekki parce que situation boobu ak engouement bi mu àndaloon mook Sonko ak leneen population yi nammee woon bu ñu fa duggoon dëkk bi yëngu te bu yëngoom wàcc ndigalal sëriñ bi kon moom jëfe ndigal la la def léegi nag loola euh, pièce la boo xam ne itam ñi ko doon fexeel bu demoon xam nga lu ñu koy topp di wax dañu naan ko des léegi nag <clears throat> dañ naan léegi moom sëñ bi seet terrain politique ci ñàkk taalibeem ñëw na fi politique si loolu lañ koy waxal léegi nag sëñ bi daa léegi nag Bassirou Diomaye Faye ci ki nga xam ne moom moo di baax du saamit maanaam ki nga xam ne loola mën a daal mën a ndokk sa mhm. kooku ñaari xas la ameel xas benn bi mooy du gën politique ak daa yeex a dem Touba ñaar yi nag da koy comparé ban moo ci gën a oyof daa yeex dem cest mooy moo gën a oyof daa yeex a dem gi nag ma la ma explique ma defee xam ne la boo xam ne cër ko màgg ndax en tant que président de la république yaa ngi dégg ñu nommé ko en tant ñu ñu fal ko ci diggante boo xam ne presque boo dee xool ak bi mu la seetsee matul un mois mu def prestation de serment ak bi mu la seetsee matul un mois te bi mu faloo adduna juróom-ñaar yow la ci jëkk seeti seetiwul ndayam seetiwul seetiwul magam seetiwul rakkam seetiwul militant seetiwul kenn sëriñ Muntaxa la jëkk seet te fi ne seete ba seete jaax boo dee ca ca alxuraan ak sunna ndayam ci a yey xam nga ca alxuraan ak sunna ndayam ak baayam ñoo gën a yey ci mu seeti leen fi mu ne te ndayam ak baayam yooyu te nga naan dem seete dem seete sëriñ Muntaxa moom la jëkk seet te ci biir discours bi da ci dégg lu mel xam nga ay teggin dafa baax ak yar te it ku ko yàlla jox xañu la dara waaye kum ko xañ itam joxu dara mhm. ay yar ak boo seetee mhm. du mu toogee ci kanam sëriñ bi moom li ko tee dem ah mooy li ma la wax léegi mhm. waaye loolu du ko wax sëriñ bi man damay waaj a ñëw dégguñu ne yaay tere kuy politique dëkk bi loolaa tax ñëwuma fi te effectivement noonu la demee xam nga mais loolu du ay teggin ba tey mu toog ci kanam sëriñ bi di ko ko wax la ma ko wax mooy man ki sëriñ bi dama fee ñëw ne naa fi njëkk a ñëw bala maa génn sax di dem bitim réew naa la seet man doom laa fi taalibe laa fi dem ci sëriñ Baye Sy Mansour aussi la même chose mu defaat noonu ne ko man kat dama fee war a ñëw ndax wurumaa dem fenn furu damaa jiitu fii jëkk fi jëkk fee egsi ndax man doom laa fi taalibe laa fi lii nag mooy li nga xam ne c'est-à-dire man moom mooy li ma remarqué ci mbir mi léegi nag mu am leneen lu mu def loo xam ne gis nga njiit ak kilifa noonu ngay doxee mhm. gis nga réew bëgg nañ ko ko tabax ci ay tabax mhm. bëgg nañ ko ko tabax ci ay infrastructure bëgg nañ ko ko tabax ci ay assainissement bëgg nañ ko ko tabax bëgg nañ ko tabax waaye xam nga lu ñu gënal li mhm. ñuy wax cohésion sociale cest dire mooy nit ñi def la ñuy wax al muwaafaqatu baynahum mhm. maanaam am benn euh, benn benn benn ànd. déggoo benn déggoo très bien. Mhm. ci seen biir boo xam ne moom mooy li nit war a gën a soxla avant muy dem ci la ndax yàlla dafa ne damaa bëggoon. Mhm. ngeen déggoo yéen nit ñi. gën déggoo wut di jéem a tàqalikoo di jéem a am yu ngeen lijjanti wa tas xabari hukum seen kattan day dem ngeen neew doole. c'est-à-dire déggoo gi nag mooy ba mu jógee dem. tey boo xoolee ñu bëree bëri ci man. man personnellement man. mbooloo yu dul jeex wax nañ bu fekkee man nga ci dara. na dem siyaare sëñ bi te ay soppee ko doon wax de na ko nuyu ji balaa dem fenn mhm. bu fekkee mën nga ci dara na dem siyaare sëriñ bi ay Mansour mhm. ndax ay soppe ay soppe lañ te ay taalibe ay soppe lañ mhm. balaa dem fenn waaye effectivement gis nga yàlla xam nga yàlla dogal na ko yàlla dogal na mu dem fa léegi loolu mooy tijaan bi bi nga xam ne Basiiru Jumaa Fay la doon jàppal ak gëm Sonko mu jaral ko lu ne ab saytaan jógee fële bëgg a yàq am xelam ci ne ko kii fonkul sa kilifa ci ko waaw Sénégal ku ko xam nit ñi parfois seen i waajur sax seen sëriñ ñi leen koy gënal mhm, ku ko xam xam nga la baax kon ñoom bu ñuy sonn ci yow dañoo defee ne sëñ bi dalal na may liberté nga am liberté nga am droit ànd ak ku la neex mhm. loolu la yaakaar ñoom mhm. ba ñëwee ba gëm na ne yow da nga am problème ak sëñ bi ki la gënoon sopp ci ñoom moo lay gën a bañ mm. ki gënoon sopp ci ñoom te man ci ñooñu laa bokk Mhm. man mii ci ñooñu laa bokk waaye man man yàlla dogal na lañ naan xàmmee ak ràññee dafa am solo ci doomu aadama mhm. man xam naa ne ñiy wax naan daa yeex a daa war a dem mhm. lu muy xaar ba heure bi demut nangam ak nangam wala nii naan na li tax ma ca di wax ñeneen wax ne jàpp nañ ne bu ñu nee nii rek voilà affaire bi daa tëddee neneen loolu mais man euh, vraiment jàngat bi ma ci am jàngat la boo xam ne tam yoon wi ci ni ma ko jàngate du luñu waaj yoon wi dafa mel dañ ko improviser. ndax dañ ko improviser. lu tax nga wax loolu waaw li tax ma wax ko mooy. boo demee ci biir wax bi rek man parce que man ñaare mépp mbir mépp mbir mu am. Hmm. image laa jël jàngat image yi. après image yi ma jàngat wax ci. xam nga lan laa jàng man wax ji laa jël wax ji xam nga dafa ni man avant ñuy génn di dem feneen. Hmm. kon ndeke avant muy dem ci sëñ bi am activé na tukki gi mu war a tukki hmm. te jàpp na ne moom rafetul ci moom. muy génn di dem Mauritanie te siyaara ji sa siyaara ji sa maam kilifa yi diine kon li nga xam ne mooy xam ne ne moom bi sàngam du tey la mercredi bi caalande mhm. tey jii lay dem Mauritanie léegi nag bërki démb la la fa jóge léegi fomm na ko sax ba jeudi conseil des ministres conseil des ah. kon boobu information ah, ko ba suba waaw mm, ah, fomm na mhm. la conseil des ministres même bu dematul Mauritanie amul temps pour fa mhm. parce que maanaam lu toll ni conseil des ministres tax laa maanaam lu toll ni tukki tukki wax na diplomatique mm. nga bàyyi ko ngir conseil de ministres. kon tukki la lycées mën naa am soo boobu demeewul noonu it tey du mën a dem Touba. du mën a dem Tivaouane du man a dem feneen ak feneen. voilà président gi nii boo xam ne daal lii waykat bi daan wax naan doon xaar gis naa la yow doon doon wër gis nañ la. effectivement bi ma jàngatee bu baax daal ci biir waxam gis naa ne ku bëggoon a génn la te activé na ab tukkeem ba pare. Mm-hmm. waaye mënul génn lu doon ne daa ñëw ci kilifay diine te kilifay diine yooyu nag li sax euh, moom mu def ni mu defee te it wutoon a defee nu dul noonu mooy ñun ñu mel ni ñun ñi di ko dimbale te ne ci biir te ne ci biir te ne ci biir mais balaa may dégg ci yéen ñooñu mais est-ce que mënu moom matale Touba Tiawan mm-hmm. euh, tey Medina Gounass mi ngi fi Laayeen mi ngi fi waaw euh, maanaam kii bi église bi mi ngi fi mm-hmm. waa xam nga fi ne nii ah. bu demoon Tiawan képp ñi bi toog mm. dem na Medina Baye mm. dem na Léona Niassène dem na ca chrétien yi dem na fépp. mais yow xam nga dëkk bi ni muy doxee. waaw dëkk bi ni muy dox dëkk bi noonu lay doxee noonu lay doxee walaay dëkk bi nii ma la wax rek lay doxee. am ñu am jàpp ni da leen a cof. wala leen nii mu nii ma la wax rek nii rek ma la gis nga jëmmi boo demee Touba. Mm. waa ci waa woon ñoom amatuñ lu ñuy soxlaa ko bëgg jàpp ne lii. da da koo defal diw dama ko war a defal. déedéet tax lenn li la. Mm-hmm. damaa dégg ci alxaaji euh, damaa dégg ci sëñ Abdoul si Al Amin mm-hmm. mu ni Cheikh Seydi Hadji Malick Sy dafa amoon benn mu xaddam bu mu bu mu tegoon Gosaas wax na turam dama ko fàtte. Mhm. nee na bi sëñ Touba ñëwee bi ko Touba bi indee Jurbel daf ni xanaa lam fa xas nekk tax. Mhm. waaye kon du fa dem te kenn du fa dem itam. Mhm. balu ko jege ndax suñ bokk ma dégg naa suñ bokk ma tubaab yóbbu nañ ko fa. te ma nga fa yaatal diine. loolu loolu ni ni ko mën a dégg mooy kon ñoom ndekete yoo du ne man na sama kër xum ba na sama kër fees loolu affaire écrit écrit écrit la la naa la ëpp ay fans mais affaire loolu du loolu du loolu mooy Omar Gueye moom gëm na barab sàngam wala gëm na ñii wala ànd naa ñii te lépp mu xam ne l'islam da amul problème ci Touba Touba Omar Gueye gëm na Touba amul problème ci Tivaouane Omar gëm na ti law na ñeseen amul problème ci Medina Baye Omar Gueye gëm na la ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi fi waa Andoulaye et cetera problème boobu du problème bu Sénégal mhm. Sénégal amuñ problème boobu te ah. itam gis nga fii ngay wax nii hmm. da nga ko fa gis te doo ko gis Touba xam nga dafa ne daana dojul suuf hmm. waaye bis daa am ku ñuy wax euh, benn doomu baayu Xasan ibn Ali ibn Abi Taalib karamala mhm. bi mu ko yebalee Baxdaad bi mu demee dajeek Abdullah ibn Abi Sufyaan mhm. borom xam-xam yi am nañ ko wax Abdullah ibn Abi laa ko mën a wooye parce que loolu téere yi xaw a saxal mhm. xam nga ma tax dañ naa ko daf ko emprisonné jàpp ko bi mu dikkee teg ko ko àtte bi ko doo ma nuyu doo ma nuyu Abdullah ibn Abi Sufyaan loolu la wax prisonnier bi mu jàpp rakku rakku rakku Asan ibn Ali bi Xuseyn ibn Ali bi daf ko ne bu fi ay bis desaatee. Mhm. ay bis ci sama dund man dinaa la nuyu si. Mhm. dégg nga loolu. Mhm. c'est-à-dire mooy jëmee le président de la République Bassirou Diomaye Faye. incha allah ñoom ñëpp dana leen nuyu ji. parce que wuutale wut ki nekk Tivaouane ak ki nekk Touba. wuutale wut ki nekk Kaolack parce que itam gis nga Omar ndax mas ngaa gis. Sénégal yenn élection présidentielle président bi gagné. sam cité de liste yëpp mu gagné ko ndax mas nga gis loolu fii Sénégal. mais ren am na. voilà kon nga xam ne nag nit ñu ko wateel ñan lañ du donga yeeg talibé. ñoom xam nañ ne kii du koy xam nañ ne kii du koo xam day jël ñu teg dafa am benn paradoxe ñoom fi leen doon dëkkal ci salafis ak ñàkk jox yitte këru diine yi. ñoom loolu leen doon lii ba ci sax amoon na jamono pour ñu mën a dax dem ci sëriñ si daam loo xam ne peut-être que gars yi duñ ci débat mais sax am na foo xam ne bu ñu fa mësaan a bëgg a dugg sax mu mel ne sax. Ah, waaw waaw ah, loolu moom garaaw te lenn sajj ak yooyu. Ah, du lenn sax mën a yaatal. waaw loolu garaaw moom. mais bi élection yi amee. le contraire maanaam cité religieuse yëpp. même yi nga yaakaaru. loolu bokkut ak euh, chef religieux yi ko. waaw xam nga chef yi. muy kilifa yi moom dëkk ba. Serigne Baye Ousmane Sow bi moom Tivaouane. Mhm. Serigne Mountakha bi moom Touba. Mhm. Euh, euh, Serigne Mahi Niass bi moom Medina. Mhm. ñoom amuñ problème ak Bassirou Diomaye Faye xam nga dafa baax amuñ moom moom problème ak président Ousmane Sonko. te buñ amoon ak ñoom problème. ba nit ñi xam ne waxuma ñoo wax ko de ñoom bu buñ ko xamee rek. Bassirou Diomaye Faye dina am problème. xam nga man ma bëgg li mu leer waa adduna gépp gépp gépp man. Sëñ Tuubaa dafa ma lu ma amul man lu ma ko gënal. dama ko amut. te gis nga li ma koy ñàkk ñàkk am fi ne sëñ Mountakha mi laa ko jàppe waaw sëñ Touba moo gën sëñ Mountakha moo fi Serigne Touba. Seexul Xadim xam na ne. Ah, bu sëñ Mountakha amoon jafe-jafe ak Sonko ma xam ko. ma ànd ak sëñ Muntaxa bàyyi Sonko tamit dëgg waaw parce que Sonko jëriñu gu ma dara te sëñ Tuubaa démb ba tey moo may jariñ jariñ lu ma nit jariñ sax damay jàpp ne sëñ Tuubaa tàggatam xolam ma jariñ ma ko man mhm. ak fu am sëñ Tuubaa dara ku am Seydi Hadji Malick namatoo dara mhm.

mooy bi mu ñëwee teggi nii maanaam simi na dàlli mais ay kaw sa solo waaw ah. maanaam ak na mu sukkee ci kanamu sëriñ bi maanaam loolu am ñu ko commenté ni tontu la ci ñi doon féewale waaw ah, fari ku di makaan ba mu demee Tiwaawan tamit def la même chose njëkke na te njëkkewu ko foofu digganteem ak Aminata meng foofu politique la digganteem ak grande mosquée imam bi Aline Moussa Sam te imam bi am na position bu mu jëloon ci ñoom. mais loolu yëpp garaawut. mais yooyu yëpp boo xoolee teggin yooyu muy wane est-ce que du tontu ci ñi am fu leen doon dëkkal. Ah, Ousmane Sonko tamit wan leen ni jullee fu maanaam génn buntu këram rek julli buntu këram it ci ñoo xam ne tey ji ñoo yanu état ci réew mi. xam nga borom yan jàngat ngay def ci teggin yooyu ñuy. teggin yi njàngat may def mooy njàngat yu am solo te lool. Hmm. xam nga dañ ne fa lay am lu yàlla gis nga solution TV gii bu ñu nee tey kuy ñëw. na nga sol lu weex. bu ko waa solution TV waxee. ku solul lu weex bul ñëw ndax ñoom ñoo ko moom. xam nga maanaam jarul ñu naan ku sol lu weex bu mu ñëw bu ne ku ñëw na sol lu weex rek. ah message bi jàll na message bi jàll na. c'est-à-dire maam kiy jaay fulla la woon lu mu laay sol te danaa dem kooku fi ne amul fulla ah, ah. ba mu xamee ne mu nëntu sol lu weex na toog bañ a ñëw. Ah, loolu rek mooy loolu mooy fulla dëgg dëgg fulla loolu la Seydina Mamadou Safin dafa seeti. dafa dem siyaare ji bàmmeelu Euh, Abu Hanifa. Mhm. xam nga moom euh, def ni di julli def ni ci loxoom moom daf ko daan moom loolu la gëm loolu lay def. maanaam di di xabdu quoi xabdu la daan def. Ah, ah. xabdu boobu dafa dem ca mhm. imaam Hanifa di ko siyaare ji. bàmmee la boobu faatu na imaam Hanifa moom da doon dàq lii. xabdu da daan dàq. moom da daan sandamtal. da daan sandamtal. Mhm, bi mu demee di julli ci wetu. Euh, bàmmeel bi ci jàkkaam. wàcc ay loxoom deful nii de. du mu sëlmalee. Hmm? Eh, eh, ka nga xam ne moo fa nekkoon ab ab taal mooy ibnu eh, ibnu ibrahim bi fa nekkoon taalibe bu gën a mag ibnu ishaq laay wax mhm. na kon ah imaam yow dañoo am ñu ne yow ay téere yuñ bind wuute yow ci ne yow da nga xam du moom nga gëm mhm. après da nga wàcc tey say loxo de mun na ko barab bi ki ko moom mhm. moom noonu la daan def loola tax ma def ko tey ngir ormaale ko ko waaye taxul mag ma gëm ko de loolu la ko wax dama ko def ngir ormaale ko ko waaye taxul man ma man ma ànd ci xalaat boobu léegi nag Bassirou Diomaye Faye moom bi mu demee ci xalif général di barab ba la la mu laaj loolu rek mooy la mu def parce que loolu mooy xam-xam. loolu mooy xel mu rafet loolu jikko ci rafet loolu moo di nite. am na ñu fa duggoon sol daal. waaw waaw kooku Macky Sall la parce que moom xamut état Macky xamut luñ état Macky defe na ne état daal moom boo doon président c'est-à-dire yow daal yaa fiite kaw ñëpp. loo moom loolu mooy li mu gëm moom te loolu la fi nekkee woon. waaw te barab benn barabu Sëñ Tuubaa Macky Sall keroog ba mu dugalee otoom ba. dégg nga mu dugalee otoom ba ci biir jumaa ja man keroog daanaka otoom bi ci sama kaw xol bi la ko jaarale. otoom bi sama kaw xol bi la ko jaarale te bu ko defoon aussi Tivaouane la même chose parce que gis nga principe yi Tivaouane di défendre. Mhm. religieusement. mooy mhm. tubaab tubaab di défendre mhm. man ci loolu te man loolu laa xam fi na lee daanoo ma daanu waale man. lee bu yàqoo ma yàquwaale. moo tax man li koy dëgëral man loolu moom mooy li mooy li ma intéressé. Macky dafa gëm ne moom nguur pour mu dëgëral ko wala pour mu dëgëral pour moom mu xam mooy kan mu doon mooy kan. pour mu am existence. il faut moom mu daal di def noonu mu def sol ay dàllam ci biir dem ba ci barabu Sëñ Tuubaa ba sax. mu sol fa mbaax naan. loolu ñun suñ tubaa waxuma la moom suñ tubaa waaye xanaa euh, ñi mu jaboote ñu di seetam rek ñu yoo leen ay mbaxana ñun duñ ko def déedéet duñ def loolu te loolu orma la rek tegtalewu ne nit ki sax mooy si kilifa déedéet déedéet tegtalewut loolu man man man mii ab taalibi suñ tubaa la mais saa su may jox nit loxo ma xam ne kii ab tijaan la fe ne du ma ko sa jóotal dama koy saafoonteeg moom parce que moom loolu mooy lim gëm dégg nga su may jox loxo ab laayeen damaa gis ñoom dañuy sujjóot man damay sujjóot su may jox xaadir ñoom dañuy sujjóot damay sujjóot loolu moo di nite nit ki chaque jour bu ko agressé ci dara bu ko agressé parce bu ko agressé gis nga nit ki bu yàlla sàkkee bari Omar xam nga lu mën ta ñàkk ci moom nga xam ne mën ta ñàkk force daa war am mu nit ki moom daa war a doon nit mhm. nit bu ko neexee moo xam mu bañ a doon ab su ko neexee moo xam ne bañ doon ab chrétien su ko neexee moo xam ne bañ gëm sax ab tariix na bañ gëm kenn ku ko soob na gëm boppam loolu amul benn problème waaye doon nit nekk ci biir nit ñi di jafe-jafe nit di wax waxe nit moom loolu force la waaw ah, sëñ Modou Asta Mbacké ah, doon ah, tey ji doon sunu gan doon observateur ci seen politique bi ñuy waxtaanee visite président de la république comme ni nga ko bëggee ba Bassirou Diomaye Faye ci Touba Mbacké <laughs> <laughs> sëñ Modou Asta <laughs> léegi dafa am benn mbir bu am boo xam ne dañ ko jàngat wax nañ ci forme bi ak visite bi ak ñëw gi mais dafa am ay engagement yoo xam ne daf dafa jël mais balaa ñuy dikk ci engagement yi ñu ñëw ci ñëwin wi ak wéetaay bi maanaam ñëw na Ousseynou Ly El Hadj Malick Ndiaye ñooñu boo leen gisee ci wetu Diomaye doo laaj lan lañ fay def. loolu dëgg mais dëkk foo wala naan dëkk boo dem la fa. ñuul moo fa di. moo moo fay dara. moo fay dara wala moo fa di ñàkk. waaw moo fa di ñàkk waa waaw sëñ Modou Assa Touba. Mm-hmm. ñépp xam nañ ko ci waxal Pastef. Mm-hmm. sëñ Assane Mbacké Touba. tey jii boo nee Cheikh Thioro en tant que député la coordonnateur. Mm-hmm. ak ñeneen ñoo xam ne tey bu mu doon lim du jeex ba ci Diouf Lambaye. Cheikh Baara Ndiaye mun nañ ko wax ci taxawaay ci Touba. surtout ci jamono bi ñoom jomaay nekkee ci kaso bi ñu gis liggéey bi ngeen fa ak escore bi coalition jomaay gagné tubaa li ma naan lépp loo xam ne gars yi fopp nañ ko ca Fuuta rek waa Touba récupéré waat nañ ko ca ah, jomaay maanaam plus de 90 pour cent lu musta am Touba Ablaye Wade amu ko Macky amu ko Idrissa Seck amu ko kenn musta am depuis Estar Touba amu ko mais ci visite bi yéen gis ñu leen loolu ban jàngan nga ciy de waaw man de wax dëgg yàlla loolu sax awma ci problème lool ndax xam nga dafa am benn mbir moo xam ne man man effectivement li may faral di wax rek. est jekkul woon bu ñu gisee Jomaay gis Cheikh Bara ci wetam gis la gis keneen gis kenn maanaam mu jekk di est que doon woon gën a taaral teewaayam foofu ci Touba. waaw waaw parce que nag ba fa dara nekkul yéen fa nekkoon aussi. Ah, loolu d'accord naa ci moom. waaye gis nga Omar Gueye. Hmm. dafa mbir moo xam ne man tout le temps dama koy bëgg di ko ràññatle. Hmm. gis nga nit ki maam président mën na laa xam. premier ministre xam la chef d'état-major xam la. Hmm. Euh, président protocole présidentiel xam la garde présidentiel xam la ñëpp xam la. Mhm. te fekk état du la xam. Ah, loolu dëgg la fekk état du la xam. képp ku am du nekk am d'état rek ne ci biir état di doxal état ñëpp mën nañ laa xam yow ñëpp bëgg la mais état du xam état du xam mooy tey mhm. man ma xëyoo jóge fii tey Omar Gueye mhm. ne damay dem pale damay fay xam nga xam na ma bu baax. xam naa ne xam na ma moom itam xam na ne xam na ma. en tant que damaa xam xam naa ko rek fi ne taxumaa dugg pale fi ne nii. Mhm. dégg nga léegi nag nit ki état itam Diomaye Faye mën na laa bañ a xam moom. Mhm. dégg nga premier ministre Ousmane Sonko mën na laa bañ a xam. homme d'État mën nañ laa xam mais état xam la. Mhm. bu la état xamee maanaam aw këyit la la état di jox la yaay nangam wala yaay sàngam da nga dem ba gis Diomaye Faye toog ak te kenn du mooy nit ñi seera a xam la ak état xam la dafa différent dégg nga léegi nag bu la état xamee bu la nit ña xamee te état xamul la état kem xam mooy ci misaal xam nga gis nga sëñ Cheikh Thioro dégg xam nañ ko xam ma mais moom état xam na ko parce que député la institution la kooku état da koo xam man nag état xaw ma man man état xaw nag loolu da nga koy ràññeet la yow soo ko ràññeet lay waxtu ne da nga ci am bi nga war a taxaw ci ay protocole lay dox ci ay protocole lay dox ci nit ki déedéet état la xam xam rek mhm. état état la xam loolu la koy amee léegi nag euh, comme euh, ñàkk gis gi ñu fa ñàkk gis hmm. damaa jàpp ne it loola euh, ci ci dikkin bi ni mu dëddee noonu rek la hmm. mën a demee hmm. mooy kenn yëgu ko ñun yëguñu ko xam nga kenn yëgu ko léegi ñun ñu xam nga c'est parce que ñun yëguñu ko Omar suñ ko yëgul mënuñoo def tamit bu ko yëgoon man ne maanaam mi génnee pale huit léegi mi génn te mbóoru ma ne man su ma jógee dakaar mën naa ko njëkk Touba fenn du ma tax a dem déedéet man xam nga lu may tax a dem état woo ma ne ma ne ma damay ñëw dama fay ñëw ñëwul ñu ànd wala xaar ma fa maa ngi ñëw. mais est-ce que waruñu woon def loolu ñoom. waaw man damaa jàpp ne dafay xajut ko def. pour yow yàkkamti bi ak bi. damaa jàpp dafay xajut xam nga musique boo xool ni mu tëddee Diomaye Faye sax mi bi musique mi def musique da ko bett ndax xam nga am na Touba nu mu daan hmm. euh, da ngay dem nga ko yëgal ne ko de la République mi ngi ñëw sëñ Mamour day ñëw wala mu yabal xam nga. Hmm. ñu yable Kër Sëñ Mor Diarra comme man fa ma dëkk sëñ ba ñëw wala mu yebal rakkam ñu yebal ci misaal que sëñ Fallou sëñ ba ñëw wala mu yebal rakkam ñu di ko toog ci benn saal président bi ñëw mboolem dignitaire dignitaire mouridisme yëpp di ko toog xam nga dafa baax loolu nag pour mu mën a nekk maanaam avant ñuy démarrer dañuy wax sëñ bi ne ko bi sàngam jomaay dina ñëw moom itam mu yëg mu nekk visite boo xam ne visite bi yaatu lay doon mhm. boo defee nag ñu yëgal ko ñëpp ñëpp bu ñëw toog léegi nag comme loolu loolu xaju fi xaju fi ndax est-ce que nekkul ni folklore politique bi la doon daw tam comme li nga. waaw man jàpp naa ne daw loolu sax du folklore politique parce que ya loolu loolu sax war na ko def. loolu problème. Hmm. xam nga li tax du problème mooy. en tant que euh, président de la république. yaa ki yaay kilifa ñëpp njaboote ñëpp. Hmm. visite di def ci benn dëkk moom. Hmm. yëgal nit ñi ne maa ngi ñëw loolu dara nekku ci. loolu man gisuma ci benn benn inconvénient waaye ci misaal jot googu da koo amagut. jot gi da ko te tey xam man maa la ko wax fii dana ko def incha allah dina ko def jot googu da ko amagul maanaam bi mu faaloog léegi yàggul hmm. mi ngi ci ay rek laa sam ba tey lijjanteegu ko te gu ko ndax ci diggante bi xat na fi hmm. dégg nga tukki yu bari di ko xaar et cetera génn kaso bi campagne bi gaawantu bi voilà maanaam fii def maanaam moom maa ngi naan sam benn waaye dañ koy yàkkamti waaye dafa gu fi weer de déedéet moom dara ñoragul bañ koy màcc hmm. dara ñoragul bañ koy gis nga déwén ci heure bii ci bis bii yow doo ma laaj li tax demul Medina Baye parce que dana fa dem ba ñëw déwén ci heure bi doo ma laaj li tax demul Léona Niassène doo ma laaj déwén ci heure bi li tax demul Andoulaye doo laaj déwén ci heure bi li tax demul euh, fële euh, mais mais dëkk diine yi waaw dafa am réalité yaa ma ko gën a xam waaw mooy tamit comme dafay soxla ji di politique ëllëg ci élection législative wala leneen ak leneen te réalité bi am dakaar wala mu am maanaam dëkk diine yi dafa am réalité maanaam boo fay dugg war nga am buntu yooyu jaar am fa say nga xam ne ñooy préparer le terrain pour yow. waaw loolu d' accord naa xam nga loolu ni mu demee nii day nii la. man tey bu mu ko doon conseillé. waaw tey dina ma naan ko yéen ñëpp mu woo leen. waaw waaw xam naa dafa ko def. terrain bi ko def. <coughs> yéen a ko gën a min Touba ko ko xam. Mm-hmm. des fois ku lay def am am daam la war a defaral terrain bi. Mm-hmm. pour yenn faay gis nga loolu loolu Omar Gueye maa la ko wax fii dina ko def. <coughs> maam misaal daf dafay xajul. Mm-hmm. xam nga li sëñ Baye Jaxate naan bul nekk fii bëgg jël sa tànk teg ko fa ndaar. xam nga la par exemple mooy moom état. lii rek parce que politique booy dee génn dem ci këru diine yu bari ni te préparer wu terrain bi du mun nga mun nga am mbetteel de. na fooy dem. mun nga am mbetteel wala ñu def wala ñu def fa discours ah daloon na fi Amadou Ba Louga. nga dajeek ab sëriñ te ne lii mu dóor fa discours boo xam ne arrangé wu la. te yooyu yëpp ñàkk préparer terrain bi doog a génn la. parce que réalité wu ki ki nekk ci opposition ak ki nekk ci pouvoir. dafa dafa différence parce que différence mooy Amadou Ba ba muy dem Louga. wax dëgg yàlla booba sénégalais yi ki ki ko fa yabal mhm. ak ki ñu fa yabal ba ñoo yor mbiri te booba nit ñi sonn nañ ma xamal ko ne rek nit ñi sonn nañ mhm. te booba it moom ku mas a dem boo kuuxule te xam nga ne nit ñi sonn nañ ñoom dem ñëpp buñ ko waxul ne ko nit ñi sonn nañ xam nga nit ñi dañoo sonn mhm. noonu la tëddee waaye gis nga état bu buy jóg ci ñiiral lay jógee mooy état ka xam buy jóg gouvernement kan lay waxal maam gouverneur gouverneur de la région lay waxal pare na ca waxal préfet yi na ca mooy wax ak préfet préfet wax ak commissaire commissaire wax ak daal di wax ak commandant yi. Mhm. wax ak sapeur pompier ñu ñëw ne président day ñëw jeex na. Mhm. dégg nga mu amaat beneen système protocolaire. Mhm. mooy danañ woote ne. chef de lycée bi yow yow la ñuy seet si. kooku itam moo moo àqoo yàlloo woo ay mbokkam. dégg nga buñ paree itam ñu woo représentant politique beneen représentant kooku nag mooy woo. politicien ya fa nekk wala ña koy jàppale te ne fa. nii la la demee. te lii lépp jàpp naa ne man xaju fa. man damaa gëm ni joma président de la république Bassirou Diomaye Faye dana fa ñëw. te buy ñëw itam euh, dana fa ñëwaat te buy ñëw ku mu war a woo dana la woo man nag awuma problème man ci ñu woo maa ak ñu ñàkk maa woo mhm. waaw man moom wax dëgg yàlla awuma problème boobu man mais dama gis ay sëriñ yi commencé di yëglu du ma tudd tur ñu mel ne maanaam transhumance politique waaw waaw waaw man man man sëriñ yi wala transhumance religieuse boobu sëriñ su mel mais est-ce que loolu tamit yéen itam boo li gars yi naan fattul fépp boo leen fattul fépp war na seen bopp mbaa ñeneen du ñëw récupérer ko parce que dal na fi Wade dal na fi Macky yaa ma gën a miin Touba yaa ma gën a miin këru diine yi. waaw maanaam. maanaam bu leen waroo leen nangu aussi tey jiitu ci pax mi ba pare seen. maanaam waaw ah, man de <laughs> di nekk ci ah, ah, Omar boo dëgg-dëgg man hmm. sama xëy da ci loolu sama pas-pas ci loolu. Hmm. man man damaa moomut Sénégal moom ma nguur gi moom ma jomaay moom ma système bi. Hmm. moom ma faluma ko itam nit ñoo ko fal. feneen nii ki ko contrôle bu ko neexee mu ñëw man man awuma ci problème. léegi nag demal man nga ko léegi boo demee itam te xajowu la itam nga xam ne moom xajowu la waaye man moom wax dëgg aw ma ci euh, xam nga ko mhm. misaal da doon combattre ngir bu Sonko doon président bu bu ko jomaay doon comme ñu mel noonu yaa ngi dégg mhm. personnellement man ah mhm. bu Moustapha Dramé ñëwoon day ànd seeg Sonko man aw ma ci problème du ma ne lii la waxoon Sonko wala lii la man man ko moom waaye réew mi dama ko moomut état dama ko moom man état man bu ma ci amee fukk Moussa Dramé da fukk su ma ci amee téeméer keneen da cee am téeméer état daa bëggut ak parti bi état naanga ma ki naanga loolu moom dama dama dama gëm na ñoom ñi koy def am nañ ci plein droit léegi daal lenn laa xam ne dinaa ko wax mooy loolu ñu wax toog muy dox yow gars yi bari di bañ di ko bañ ah loolu toog muy dox est-ce que loolu dèjà baax baax na ci réew man na loolu laa jàpp ne moom li nit ñi bañ effectivement gis naa benn ministre bu ñu wax euh, Birame Souleye Diop mu wax ne waaw ñun bu ñu gën dee làmb bu kenn yaakaar gaa yi daal ci kawam gis nga foofu nit ñi maa ngi leen hmm. gis nga mbëri làmb yi. Hmm. doon contre Sonko. Hmm. ak man mi ko doon jàppale. ñoo rek ci état bi. waaye gis nga Birame Souleye li mu wax. da ko sañ 100 pour cent loolu xalaatam la. moom dañ koo dénk. jox ko tous les moyens pour liñ ko dénk normal. am na droit taxaw ne nangam ak nangama bu ma ci kenn woo ku ma ci parce que jàpp na ne moom ku ko ci woo da tax mu échec te bu échec moom bu échec moom ma rendre compte mais dafa am mbir mbir mu am waaw mooy euh, kii cool passeport yi waaw wàllu waaw cool ah, amoon na ñu bari gis ni sëriñ si ñi ko ci yor bari na est-ce que loolu du ab piège boo xam ne tey jii Macky Sall ko fi bàyyil Jomaay parce que Macky Sall bi Ablaye Wade daanu amoon na ci problème waa ah, pièce la moom digganteem ak sëriñ si loolu moom pièce la moom. ah pièce la waaw dëgg dëgg. ah eh, lu tax nga ni pièce la. waaw li tax ma ne pièce la mooy xam nga Macky Sall bu fi nekk fukki at ak ñaar. Hmm. woowut soxna Viviane defal ko li mu ko war a defal. woowul Tafa Gueye. waaw fukki woowul Yékini kenn ci <laughs> ñoom woowul kenn. defal dem ba egg ci moom li muy joxe moomatu ko mu doon mu doon ko mën a jox kon ñi mu koy jox ñoom bu ñu amee xalaat dañu xam ne kii bu leen ko yéene woon ba mu ko moomee la leen koy jox may alali jàmbur yomb na de mhm. wolof ne mat xam bu matt ki ko taxaane rek ku ko taxani wut bu ko xambee da ko yàq yaa xam nga ne yow sa kër Omar Gueye ak sama kër man damay taalee courant baak lamp yi du bokk ak kenn ko ko di taalee parce que a euh, ko jigéen ñi mën a sànne waaw ngeen ñu ko mën a wàcce ñi gën a bari ci ñoom dañuy wàcce téléphone parce que ñi gën a bari waxu tooñu ma ren ñi gën a bari ci ñoom duñ ko jënd Ah, bari na ci dañu maanaam boo doon tegoon góor ak jigéen ku dàq réeral téléphone fi nag jigéen ñee dàq réer ak yàq sax wala jox jox doom ji mu dóor xam nga lu war a loolu <laughs> <laughs> ah? ah. li gën a bari ci ñoom duñ ko jënd waaw dégg gën a bari ñoom duñ ko jënd loolu eh. daal ak yàq di tuddee noonu eh. loolu ma war a loolu hmm? waaw man daal li ma xalaat mooy yàq ki moom fii rek la dépendre dépendreul feneen waaw fii rek dépendre. mais pièce su passeport yi. pièce su passeport am na bi mu ñëwee na ko ci yenn sëriñ. waaw man daal li ma gis mooy yàq na digganteem ak sëriñ si. kii Macky Sall ba ba mu fiy jugee. mais loolu du garaaw tey jii man daal du garaaw man li ma gis mooy na ko nangu passeport yi. man loolu mooy li ma gis man parce que itam gis nga réew ñun liñ jàng ci état islamique ñun. Hmm. suñ la ko joxee da tëj réew mi. da koy tëj takku. ah koy ah, tëj stratégie doon état di yor état islamique dafa tëj réew ma kàpp dégg nga ba maîtriser réew mi ba pare. sécurité réew mi ñàkk ko. ñàkk ba maîtriser réew mi. Mm. maîtriser waa réew mi parce que dafa ne kilifa yi nga xam ne ay saxaaba lañu ànd ak yonent bi. Mm. ku leen bàyyi ñu ñu génn. dañuy am ay seen taalibe bopp seen gis-gis commencé wute ñu dem ba jàkkaarloo mën nañuy xeex kon naa leen téye mën nañu téye ba maîtriser leen ba kenn ku ne xam ne yow a kan mm. ma door laa ba nga dem. wala ñu nekk fële di manipuler. di manipuler léegi nag président de la république moom Bassirou Diomaye Faye man sama xalaat bu gàtt dafa war a tëj réew dafa war a tëj réew ma ne tëj réew mooy képp koo xam ne da ngaa yor passeport boo xam ne ni nga ko amee nekkul lu légal na ko téye en attendant du ko indil benn problème en attendant du ko indil benn problème du ko indil benn problème xool kan mooy gis nga gis nga Bassirou Diomaye Faye ñoom xam nga lu ñu waxoon hmm. système bi lañ wax ñoom xam nga nam réew hmm. bu Diomaye Faye demee ba falu hmm. ba falu te boo xoolee dignité république bi dignité république bi ñi nga xam tey réew réew mi moom bu doon bu doon am borom ñoom ñoo koy moom. Hmm. ñu jàppale bariwut. xam baax. Hmm. ñu moom réew mi bu doon dañ koy séddoo ñi ci ëppale ñi moom réew ko ci jàppale bariwut. Hmm. te moom la yàlla dogal mu jël ko. kon ñan ñoo ko jox réew mi waaye réew mi ñoo ko jox réew mi. kon li importance dëgg dëgg dëgg ci moom moom. moom mooy réew mi na koy lu mu ciy def rek na waa réew mi tax mais bu mu ci ragal walaa yaxaafoona lawmata laa'im daal alxuraan naan bu ngeen bëggee jaar ci yoon bu leen ragal ku leen yedd. parce que bu ngeen ragalee ku leen yedd du tey li ngeen bëggoon du ngeen ko am. moo tax euh, passeport diplomatique yooyu ak yeneen privilèges yi mu defoon et cetera yooyu yëpp na ko na ko dindi. su baree itam saa yu ko joxee kam ku war a jox teg mbir mi fa mu ko war a teg coow du jib man maa wax lii. waaw. mais Macky mi ko tasaare na. waaw Macky dëgg la ma wax. ba mi dem signé ay décret ñi ko warul am jox leen ko. loolu xam nga war na ci ay nitam yoo xam ne ban umra ba léegi dellusiwaat. non pièce bi nga que mooy jaxase laa ko xam nga ni teew Omar tey yow boo xëyoon fii di bëgg a tukki. may may ma benn may may may may ma ne ma am sëñ Modou maa la jox lii nit jógee fee nangu ko xam noonu laa koy jàppee kay. la tëddee. te mooy dëgg nag. kon ay noonu la ko bëgg a. ay noonu loolu bu mu ko ragal loo bu mu ko ragal loo te ñoom ñi ñu ko joxoon ñoom nañ delloo si seen xel xam ne Macky bu leen ko yéene ba mu ko moomee la leen koy jox daa ne bu moomatu ko mu dor leen ko Macky 2012 ñoom doxoon passeport diplomatique ba tey kenn mënu ko nangu ah. kenn nangu ko 2013 kenn nangu ko 2014 kenn nangu ko 2015 bu leen ko yéene woon ñoom doxoon 2012 la da leen cay boole ba demee ba ne ko génn nga pale bi génn génn nga pale bi génn nañ la mu bëgg leen ko jox xam ngeen danoon bëgg a jaxase ak moom mm-hmm. léegi te kii ma gis itam mm-hmm. jaxase ko population bi du yomb lu tax waaw parce que nii muy doxee nii dafa jafe nit ku ñuy doxee mooy gis nga état li muy rëy rëy muy neex neex neex ba tey yëgugut ne moom mi ngi foofu mooy nit ñi ko ko def sax ñoom la gën a jàppee kilifa ci boppam man yéeg-yéeg boobu laa am ci ni muy doxe léegi ndax Aminata na Ndiaye Aminata Mbengue waay gis nga sa wax ji Amin Aminata Mbengue Ndiaye ni président ni ñi jàngatee ak man ni ma ko jàngatee daa bokkul hmm. ni la président de la hmm. bi muy joxee bi muy nuyoo man fa la ma fekk maa ngi toog hmm. ni mu la ni mu la def ak ni mu defal nit ñi loolu li muy tegtale ak ni ma ko jàngatee yow ni nga ni ko nit ñi jàngatee bokkul respect lañ ko jàngatee waaye euh, Omar Gueye yow xool man maa ngi toog de xool escalier bi matul matul yaakaar naa vingt centimètres. Mhm. escalier yi matul vingt centimètres. Mhm. pour mu yéeg ba dem ci jumaa matul am un mètre te escalier bu ci vingt centimètres amut. Mhm. léegi loolu ku ko mënta dox nan ngay liggéeyee. ku mënta dox loolu nooy liggéeyee. yëkkati institution boo xam ne ay milliards la. ay milliards la garde yow mënoo loolu booy liggéey nooy liggéey fa sa bureau nekk. ñu yam ci ñu yam ci foofu <laughs> baal ma génnee la foofu dégg nañ fi ngay waxee. <laughs> di ñaanal Aminata Mbengue léegi nag loolu li président bi wax mooy xaaral ma noppal la waaye yàlla na ko noppalaale itam ci liggéey bi vraiment ah, xam nga noppal na ko yéeg bi parce que mënu ko dina ko noppalaale ci liggéey bi ak ah, ah, bu dee ni yéene jomaay egg na moom léegi mu jógee euh, Omar Gueye li ma la wax daal mooy li ma la wax ki la jéggal maanaam lu matul euh, vingt centimètres pour nga yéeg nuyu si ko hmm. te yow mënoo ko parce que da hmm. nga màggat hmm. yàlla noonu yàlla kooku mënatoo liggéey. kon ki la doon liggéey loo de saa ki la ante politique tax ma looy liggéey doo. maanaam loxo bi mu ko jox mooy wàcce naa la liggéey. loolu wàcce naa la liggéey bi parce que li parce que parce que ñàkk koo mën a tax daa mënta ñëw ci moom. ku léegi Omar Gueye diggante si ku ko mënta ay ab institution ay milliards nga a a dem ci ku ne ci waxtu wu ne te yow mënoo loolu lan ngay liggéeyal institution mënoo ko. waaw ah, doy na waar nañ bàyyi suñu institution yi te seet leneen doy na waar ñàkk a teew Ousmane Sonko ci Touba. am na ñu ko jàngat ñàkk a teew Ousmane Sonko ko jàngate nu ma ko jàngatee mooy en tant que tel la mu doon doxee rek ba tey ci la nekk. Hmm. mooy moom bi moom yàlla dogalee mu nommé na président de la République Bassirou mooy candidat am. Hmm. bu mu génnee daa jël boppam teg ne di wax ne man moom a gën a jub. Hmm. xam naa ne gënu koo jub. daa bëgg rek nit ñi teg ko fu raw ko teg moom loolu moom mas nekk philosophie am. moo tax it yàlla defal na ko ñu génnee prison. nit ñi ñu koy xaar di président yaa ngi dégg. de la République. waaye boo xoolee dafa dem ci ruqam ci hôtelam toog comme moom mooy candidat bi te ma war a wax ak nit ñi te ma war a doon kilifa ak nit ñi mu bàyyi ko mu doxal mu dem toog moom noonu la mhm. ma tànn ma ay ministre dem daal ko koy gaaral gis nga ko moom loolu ma sa nekk jikkoom mhm. bi mu génnee itam gis ngeen benn caméraman di ko caméra ni ko président mu ne ko man naka laa fi nekkee naka la fi président de la république nekkee nga am président loolu moom mas nekk ay jukkoom moom yewen moom mosuma gis ku yewenee ni moom ku dul Moussa alayhi salaatu wasalaam mhm. Moussa rek bi ko yàlla ne ko yónni naa la daa ko yónni waale la Haroun huwa afsahu minni lisaanan fa arsilu maa yuriidu an yusaddiqani an yukazzibuuni mhm. moom bi ko Macky Sall ne ko tey ngaa ñëw ma fal la bu ñu demee ba quinze quinze quinze décembre ba ba ba mois de décembre mën na ko loolu du problème nañ fal jomaay mhm. ci moom laa ma sa gisee koy joxe nguur effectivement en tant que kilifaam mooy président de la république Bassirou Diomaye Faye demagul Touba moo ko fay jiitu loolu day mel ni koy xëccoo poste la te moom loolu bokkul ci mbiram. Mhm. Sonko dafa dafa am liberté muy di jafe. Mhm. gis nga Omar Gueye le fait que nit ki. Mhm. mi ngi am téléphone am bii ah, jox téléphone bi benn benn man si la wàccuwaay bi. te téléphone bee koy moom. gis nga liberté xam nga lu ko nit ñi teg. man dunduma kenn waaw man ku ma jàpp ma jàpp la man ku ma bàyyi man ànd neex na ko taggu waaye ko bàyyi ma loolu du liberté de mhm. liberté liberté dëgg dëgg mhm. mooy nga moom lépp yilif lépp dégg nga mhm. te te loolu doo yëg ni yilif nga ko doo yëg ne moom nga ko dëgg dëgg liberté mooy loolu te Sonko dafa xàmmewul privilège bu muy am ci daraja ak dayo ngir moom mu sedd ab xolam ngir mu neex ci xolam dafa xamul loolu moo tax erreur yooyu du ko def moo tax président de la république Bassirou Diomaye Faye muy dem Touba président premier ministre ak président de la république du du aajo du itte ñoom ñaar ñuy ànd jëru ko. du aajo du itte ñoom ñaar ñuy ànd. Mhm. Mhm. mais nag kee demagu fa moom ma defa demit jëkkalante rek la. Mhm. te moom loolu bokkul ci jikko ñàkk dem bi lu gën la. ah lu gën la léegi après dina fa dem nag. incha allah man maa la ko wax. léegi nag damay faral di wax naan ci politique. <coughs> ut ba am yomb na mais tee. nan lañuy def ba téye Touba parce que gox mel na Touba xam ne tey jii ci wàllu électorat boo jegee Touba dakaar wala sa Dakar ëppatu ko électorat ak pal gi ñu pal coalition Diomaye nan lañ war a def ba téye Touba def na fa ay promesse ne ñaar mooy yittee Touba mooy ndoxu taw mi ak ndox mi ñuy naan te ñaar yooyu lu mës a jafe ci sunu nguur yi fi jaar yëpp sëñ Modou Asta maanaam hmm. képp ku sumb moom da dem rek bàyyiwaat fi coow li ak coono bi pour yow lan la nguuru nguur gi war a def ba téye Touba Touba waaw man mais aussi waa Touba gis ci seen bopp. premier point bi nga xam ne maa ngi koy wax. parce que am nañ fulla joo xam ne man dama ko seetlu. mën na la jàppale ba nga yëg waaye boo nekkul ci ñoom ñu nekk seen bopp. loolu moom d'accord am na. waaw lenn daal xam naa ko. Mhm. mooy Touba li mu koy téye man maa ngi ko koy wax mu leer ko gis nga man Touba. Mhm. ma ci am ñaari mbir. benn bi mooy yàlla dama caa boole. Mhm. beneen ba ca des itam dama ko jàng ci kayit. man néew mooy koo xam damaa judd nii rek ne fa ba màgg fa déedéet. dama ko jàng. jàng tarixa bi jàng xam léppam jàng sëñ bi xam léppam dina baa xam nga ne man koy waxtaane sëñ Tuubaa daanaka du ma ko déglu mhm. parce que loo ci wax xam naa ko mhm. loo ci wax rek jàng naa ko mhm. dégg nga c'est-à-dire li ma koy wax nag mooy mooy ñun pas-pas bi ñu am ñun murit ñun bu jëloon sama kër def ko or ji defar ñu ay tëdd ba bu tawee kenn du gisum ndox te weegut sëñ Muntaxa weegut kilifa ya weegut yoon wi man ma ma bàkku man doyewuma ko loolu au fond de au fond Mm-hmm. loolu deuxième la ci man mm-hmm. gis nga assainissement yi yooyu mm-hmm. deuxième la ci man gis nga bu demoon nii defaral ma Tiwaawan ba mel nu ko neex te wegul sëñ Mbay si man dama koy bade lu man loolu kay mooy la ci xol yàllaa ma ko naatoo itam nag man dama leen a bëgg pare door a bëgg àdduna ki dafay diine dama leen a bëgg pare door a bëgg àdduna ma leen a bëgg ngir yàlla door a bëgg adduna di ci tekki bëgg adduna mooy door a bëgg nit ñi buñu buñ xiifee lekk buñu maree naan buñu feebaree faju door a bëgg adduna nit ñi bu tawee duñ nekk ci ndox door a bëgg adduna nit ñi buñu comme ni nga ko waxee ñu amee ko fa loolu première partie la mooy moo nekk première assainissement bi muy def muy wekk sëñ bi te xam naa loolu du ma a deñ moo nekk première assainissement président infrastructure yi fa def muy wekk sëñ bi mooy nekk aussi première première maanaam euh, développement bu mu fay def muy wekk sëñ bi beneen développement ba ci des nag deuxième la moom. Mhm. deuxième la. Mhm. xam nga ne Macky Sall mii. Mhm. Ah bu doon affaire ay tabaxa ak yooyu. dem ak Ablaye Wade ci ay élection mukk. du ko ñàkk. waxtaan wax dëgg ca ah. ca Touba nag laa la wax. bu doon ay ay tabax ak yii nii. dem du dem foofu di ko ñàkk. di ko ñàkk mooy Macky Sall. 1960 ba tey. ñun waa Touba lam ñu defal. boo dajalee li Ablaye Wade def Abdou Diouf def ko Senghor def ko maintenant moom moo leen ëpp lu mu leen lu mu fa def. waaw ah, bari na maintenant moom laa moo leen ëpp lu mu fa def. Mhm. Mhm. ma ko gën a mere te ma gën ko ko mere yàlla yàlla mi amul xam na ko. Mhm. mooy Omar ma wax la tey lu ma dugal ci procès bi di ko xeex. dama ko mës nëbb ko wax. man dafa am benn habitude benn habitude li ma gën a gën a di xeex ci Macky Sall ngir Macky Sall abal mi. Macky dafa dem ba ma settantal mbir yi ma xam ne kii li mu bëgg mooy toog ci kaw nit ñi lu ko neex def lu ko neex wax ku ànd ak moom neex def lu neex wax soo defee ñun maanaam formel informellement ñun dañuy nekk ay ay ay jaam comme na ma ko doon waxee ay marabu ordinaire très bien déedéet même pas marabu yi man waxuma ci côté marabu yi non non ah. man côté sénégalais yi côté sénégalais yi mooy élection présidentielle jot Macky Sall tànn ñi tànn ñiy dem ñu ku dul kii doo dem muy 2019 tegal ñu ay résultats ne moo gàññi te te dëkk dictature quoi dictature boobu man ñaare ku ko imposé ci àdduna ak koo mën a doon ma jóg Dakar la yow ma ñëw jàkkaarloo yow. kon yow ñaar ngay xaar ci jumaa yi mooy fonk dëkk ba ak borom dëkk bi. dëkk ba fonk Tiwaawoon ak borom Tiwaawoon. Mhm. bu fonkee Touba de fonkul Tiwaawoon. lan la la ci mën ah, ah ah waaw boo waxee fu mooy foofu rek xam nga tey boo boo waxee Tiwaawoon moom boo waxee. Mhm. ku nekk tijaan yóbbaale nga ko. Mhm. dégg nga boo waxee abbé bi fi ne ku nekk chrétien yóbbaale nga ko. dégg nga boo waxee boo waxee boo waxee boo waxee man loolu mooy li ma jàpp. loolu mooy li ma jàpp beneen affaire it dina am. mooy Sénégal waaw ah, ah, Sénégal ah. nit li nga wax nii mooy wut ba am jàmm yomb na ba xam nga ne euh, Pastef ak patriote yi hmm. li ngeen daj ci wut am di ngeen daj ci wut hmm. maanaam pour ngeen réussir di ngeen daj lu ko raw pour ngeen réussir li ngeen waxoon ni di ngeen daj lu ko raw yéen ñi doon défendre projet bi ci ay kàddu ak i wax ak communication hmm. bu leen def na la ngeen bëggoon am am ngeen ko tàmbalee bu leen sax bay am li ngeen bëgg ndax benn problème ngeen di am da ngeen di farewoo di liggéey ak di wane li ngeen di liggéey ak di layal li ngeen di liggéey ak di tontu ki leen di tuumaal. te bu njëkkoon benn problème dong ngeen amoon mooy jàkkaarloo ki leen di tuumaal. te yenti problème ngeen am da ngeen di liggéey di défendre li ngeen di liggéey ak di wane li ngeen liggéey ak di jàkkaarloo ñi leen di tuumaal muy opposant bi ñeent yi nag ku ko dara boole war ngaa fagaru te góorgóorlu ñii tam man li ma mën a wat ci yàlla mooy leen mayee bat li ngeen bëgg di ngeen ko am ndax ñu nit lañ ñoo xam ne alal jiitalu leen ndax xam nga ne Sonko gaa yaa ngi wax naan maanaam këram gi mu war a génn hôtel beeg naa maanaam Sonko amul dalal gan de ndax fu muy dalal gan amu ko amu ko de. Sonko mën na dalal benn premier ministre mën na ko dalal cité kër góor këram gi. mënul ne loolu mënta ne xam nga. Hmm. parce que moom bi muy ñëw ci état boobu amul xaalis amul amul fu mu dalal nit Bassirou Diomaye Faye tey jii. Hmm. Euh, bu bu kii doon ñëw bu bu président Abdoulaye Cissé kii. Euh, euh, Gassawani doon ñëw mën na koo dalal këram. déedéet mënta ne parce que amuñ kër yu baax yuñ dalal aw nit lañ amut. mënta ne ci misaal mooy nit ki waxtu wu ne fa ngay fa daf lay imposer ña ngay am doo leen mën a dalal fi nga ne. soo gisee parfois nit woo nit ñu war a dañoo ko nañ daje restaurant sangam nañ daje hôtel sangam yooyu moo koy waral mooy yow fi nga ne mënoo faa dalal ki maam ki lay seet. parce que fële kul say yonent yàlla Muhammad dafa ne an si naa sama naa si nit ñi wàcc protocolaire bi ma gis Touba itam démb euh, mm. bërki démb ci xaw a am benn problème ci mm. image yi defe naa gis nga ko mm. man damaa gëm ne loola Bassirou Diomaye sax laaliwu ci yëgu ko du protocole présidentiel bi kenn yëgu kenn laali man loolu mooy li li ma gëm du du bi du bi du bi tey du ñii man loolu mooy li ma gëm man waaw mm-hmm. waaw loolu mooy li ma gëm te boo vérifié image bu baax image yi boo ko vérifié bu baax de gis nga fa benn koo xam ne ab takk dara la bu téye doon am kookaa koy téye nit ñi ñu bloqué te garde présidentielle téye leen gis nga ñu bloqué leen fi Cheikh Bara jaar tam gis nga ko fu yaatu la gis nga ko noonu foofu noonu bu ñu doon bu doon garde présidentielle bi ñoo fay jaar bu ñoom ñoo fay jaar ah bu doon garde présidentielle ñoom ñooy tere Cheikh Bara du fa jaar waaw beneen bi ci dollu ko itam mooy ñi taxaw ci buntu bi teeku. maanaam professionnalisme euh, professionnalisme maanaam sécurité fi bara boo xoolee takk der ak gendarme ak police ak ñoom ñoom buntu bu ñuy sécuriser. ñoom duñ ko féete biir bitti lañ koy féete taxaw. te ñii téye Cheikh Bara ci biir lañ ne. ci biir lañ nekk waaw. boo xoolee tenue yi ñu sol. Hmm. yére yi ñu sol. Hmm. du tenue protocolaire bi. Hmm. protocole bi déedéet. waaw waaye waaye man. day man man wax dëgg soxlu ma Bassirou Diomaye Faye di dem fenn di ma woo man soxlawu ma wax dëgg yàlla aw ma gis-gisu dama cay sonnoon démb a jariñ mhm. déedéet aw ma gis boobu de léegi yow tey boo xalaan da nga cee sonnoon démb da nga ci war a jariñu Omar Gueye ah, ah sa émission ah, <laughs> ah, war a jariñu tey mhm. léegi bu ñoom ñoom tey bu fekkoon ñoom jëluñ nguur gi nooy def xanaa amoo kon leneen loo yaakaar mhm. bu ñu jëloon bu ñu jëlutoon nguur gi amoo woon métier amoo woon daan def amoo woon loo daan def pour lijjanti ko n'est-ce li tax nag buñ ko jëlee itam nga ne ci loolu am ah. am déet. jërëjëf man naa ne. waaye ah, ah, du tee nag. Hmm, ki la nekkaloon ci naaj boo yeggee ci kër gi. nga woof ngeen bokk kër gi da ngeen nekkoon ci naaj yu sonn ci loolu mi yow di Cheikh Bara di sëñ Assane lu ne ngeen daj ko ci ñi dugg ci kaso ñi dégg ci lu ne ah kon yooyu yëpp yow mi sax jàppante woon nañ ci lu ne xew na mais sama waay nga ne yàllaa ko la gërëm nag sëñ Modou Assa yéex naa la yëgal émission bi mais def nga ko yitte ñëw mu doon mbégte bu baax ci man mm-hmm. tey ñu dajewaat toog waxtaan ci émission focus te tey jii gëm naa ne juumuma ci tànn la parce que ni nga nettalee mbir ma ca Touba ça veut dire nga ci lu bari te ah, lool laa doon ut maanaam ki xam li xew dem maa ngi la koy wax bi mu lay woo maanaam bëgguma woon nit rek muy wax li mais dama bëgg a wax ku xam koo ah, xam moom visite bi dina ci mën te wax nga ci ah. def nga ci ay révélation yoo xam ne maanaam képp ko dégg dina xam ne li ni la demee kon di la gërëm bu baax di la sant di jaar Cheikh Bara Ndiaye di ko ñaanal suñu borom yokk ko jàppale ko bu baax di nuyu El Hadj Modou Diouf Abdou Top ak ablaay Diallo yëpp ñoo nekkoon ci régie bi Omar bun Xaataab gi ci kàddu gi di la gërëm bu baax sañ moo du Assa beneen àllarba ñu ñëwaat ci beneen émission focus ci solution TV. incha allah di la gërëm bu baax. jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf.